at daal di nañ leen jalisé ci bërëb fajukaay yi nekk ci public. ngir nag ñu wàññi li nga xamante ne moo di risque feebar roño Sénégal daal dina amal doxalin bu bees maanaam une nouvelle technique. moo tax nag ñu ne donte état du Sénégal ubbi na ay centre de dialyse yu bëri donte ñu ngi dialyser mais gis nañ ne également malade yi koy soxla at bu nekk day yokk. donc comme day yokk nag war nañu mën a am yeneen pexe yoo xam ne day wàññi xaar bi bu ko defee ñooñu di xaar ñu jox leen beneen chance également pour ñu gën a mën a euh, wër moo tax ñu indi technique bu ñuy wax jalis péritonéale dialyse boobu tamit même euh, résultat la rek même résultat la mais euh, maanaam moo gën a oyof moo gën a oyof te tamit moo gën a baax. ngir prise en charge bi gën a ñoŋ. ñi nga xamante ne ñoo di ressources médicales yi rawatina ñii di néphrologue yi war na leen dooleel daal di leen taxaw ngir rek mbir mi mu gën a baax. boo ñëwee fii Sénégal tamit looloo fi ne ndaxte ñun juróom fukki néphrologue ak benn la bi ñu mujjee wàññi te ñun ñoo ngi ci juróom-ñetti million bon xam ngeen ni doyut léegi nag université de ndakaar moom wax dëgg yàlla mi ngi formé. presque lu jegeeg ñaar téeméeri néphrologue formé nañ leen fi mais comme du ñu waa Sénégal rek ñi fi jógee Afrique fu nekk euh, lu mat ñaar fukki réew la ñu jógee pour ñëw Sénégal pour tàggat su ci ci ci domaine boobu pour delluwaat seen réew moo tax Sénégal tamit war na yokk jéego yi. fàttali fii ci Sénégal taux de prévalence maladie rénale maanaam feebar roño ñu ngi ko estimé ci 4 virgule 9 pour cent.